drapeau Ousou Boy mbokk yi moom la ñuy waaj a woote muy Paul bu daaru ak ki nga xamante ni moom mooy Mamor ñu dem e Père Thiam bu la noté de Père Thiam bu leen bind jàpp leen si bu leen bind loolu bu leen bind loolu bu leen bind loolu bu leen bind eh, eh, yéen ñaar booy yéen boo lañ amee fit yéen ñaar ñëpp ku ci nekk boo ñemee sa bopp sa moroom kaa leen fii ay tapet ngeen booy waaye booy da ngeen di sóob kaa leen fii waaye yéen kaa leen fii ngeen bay wax ci foofu sëñ bi taxaw ci kanamu caméra yi nii di nellu rek Taaru ak Mamor seen combat nag yaakaar naa ne ñoom ñaar jaay nañ ko ba pare ndax combat yow Mamor lan la lu nga Paul def. Paul dama ko xiif namu ko barki Serigne Bamba dama ko namu kii dama ko jox cër bu baax mbër la moom ëpp ay victoire moom ëpp ay combat mais man sama combat nii lay demee man du ma seral ay métti su ma naree seral damay tëdd sama gaale du mu teew Paul yow yaa ak Mamor lu mu demee ni Mamor lamb la rek adversaire la comme yeneen adversaire yi te làmb dafa am lu mu baaxoo am lu mu laaj waaw lan combat bi a yomb du yomb signature du yomb ci maa xam nga ko xam naa ko bu baax loo xam si xam naa ne champion la ndaanaan la mais mu ngi bëre kullu ndaanaan xam nga ko xam nga ko ndaanaan la man du ma bëre ku ñuy wax xam nañ ko xamuñu ko kii champion la dama ko jox cër su ma ko daanee daf may yóbbu si toog wala gàmmu goy moo tax ma respecté loolu champion la moo tax ma jël ko sa combat moom day gàtt ngeen lay demee. si moom la dépendre bu nekkee comme combat mu mujj mi ni mu ko bëree damay takk lu ñu machine yi barke Serigne Touba man su ma bëggoon nga daan ma doo ma daan mais bu taxawee une ko am barke Alxuraanu Karim. na ma Mor kon bu ma neex na man du ma la teggil tànk ginnaaw man man maa ko signé ma la ko boo xeexee ba pare ma daan la man doo ma tardel loolu dinaa

alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi. sa jàkkaarloo musul mel nii man dama la xàmmewul tey. combat bee ko laaj bis bee ko laaj bis bee ko laaj gone yi dafa am luñ foog te loolu amul dama leen di wan ni loolu amul loolu ñuy jaay noonu dafay dafay buuj barki Seera Fall ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur di santaat suñu ñaari waajur di sant suñu ñaari waajur di ñaanal suma yaay fee mu tëdd yàlla suuf oyof ci kawam di suma njariñ di nuyu waa Daaru Cubu di nuyu waa Kër Massar bi may tàggatee commune Jaxaay bi Sangalkam Tivaouane Peulh Kër Ndiaye Lo Kër Daouda Sarr Tëngéej bàyyi ma fenn daal maa ngi woo ñëpp ba ci koñam moom Fass Mbaw bu dëgër bu dëgër kii bu bëggee suba suba suba suba suba lu ma indi loo xam ne loolu lay sol wala loolu lay takk moom barke Serigne Touba Mbacke koñam laay fanaan fanaan naa fa 15 jours daal ci si hôtel yi laay fanaan moom xam na fu fanaan fekk na moom ma toog si kaw motoom di ko xaar xoolal dama ko doon indil problème ba mu ñëwee dafa jënd glace. Paul naa ma toog di ko xaar ba mu ñëwee dafa jënd glace. parce que Seydou vidéo xam fa lañ daje Lagros lañ daje Lagros ku ne xam ne secteur Paul bu daaru la. mais kii su ma ñëwee entraînement Lagros di ko fa daje ak moom wala sama boy di ko fekk di ko am nu ñu koy def dañuy jàpp ne maa la yónni te man sportif laa kii soxla ma ci moom dara xam nga laa ko soxla géew ba rek soxla ma yónnee ci moom seetaan entraînement soxla ma dara xam nga laa ko soxlaa géew ba na ñëw ak jàmm ma jàpp ko daan ko dem ñibbi man loolu laa gëm. borom res nii borom sëy boobu daal français nga da ngaa tegle ay yére barki sëñ Touba dama lay daam un million dama koy dugal si làmb sama papa c'est que théâtre aja woote leen moo xam nga ñu jàpp si lamb ji dafa bari te lamb ji depuis daaw la woon di wax tamit promoteur bi maa ngi koy dénk yenn kàddu quoi na am na nu mu demee mu aju ñoom ñu woo leen jox leen moonin kon ñoom waroon ñoo mën a woo tout tànk am lu leen laal ñu ñëw bëriwaat ñun ay góor lan quoi bu ñu ko jox woon dara suñu yoon nekk si xaalis comprendre nga mais dañuy préparé mbir mag yi dañoo préparé kon ñun ñëpp la ñu war a joxaat xaalis est-ce que amee dégg. booy bu ñu joxaatee ñëpp booy day métti. Abdoulaye Ndiaye suñ fi ñëwee grâce à moom ak Matar Ndiaye ak Modou Fall sama entraîneur comprendre am na ñoo xam ne boo leen jiitalee mënoo wu ñaar seen loxo mais li gën a naaj mooy a moom bañ ko ba mu jotee mu mu woo ñu ne ñu jot naa xaalis jox ñu ku ne dara sax bàyyi ñu préparé. waaw am ñu la wax lamb ñu jàpp dañoo bari barki maam Serap Fall ñu si jàpp dañoo bari comprendre su mel ni sama grand laa Ndiaye Salam ma ko jox kooku aw ma fayam ku su mel ni Mara Thioub sama bras droit maa ngi nuyu sama gars yi si àndal mel ni Bobo Pape ak Boy ak bi nii maa ngi woo ku ci mel ni ay ñoom Ndak Mbaye ay le maire bu bu baax di woo ñëpp sama grand frère borom Pikine maa ngi koy woo bu baax di woo sama mafia bi nekk Malika sama gars yi ñu ngi koy waaj bu baax ak bi nekk Fass Mbao di wax gars yi nañ ñëw. baal bu daaru xale bu lëj la moo tax fu ne lay am mbool fu ne lay am supporter fu ne lay am supporter moom mii xam na li ma la wax. kontaan ci yow Adja Mamboor woote. man sama koñ sama koñ dañoo toog 5 ans mënuñu am victoire man ñëw teg la fa ay victoire man mairie jaay marché sax man lañ bëgg ak xale yu ndaw yi sama koñ kenn du ko aak maa bay bomb lépp man la barke Sëriñ Bamba joxos joxos woote eh, ku woote waale. ngir yàlla nag même même ma woote maa ngi woo Sénégal Ndiaye di woo adduna di woo waa man ay naan di ma jàppale. barki Serigne Touba Père Modou Fall Ndiaye Père Modou Fall borom Brescia Ndiaye mu sëy maa ngay woo baax si combat bi ak Vémas di ko woo bu baax di woo Grand Zandir borom Pàkk di woo Birane Niang borom Daara ji pneumatique di woo ñànk bu baax baax di woo Père Cissé borom marché Kermer. di woo Papa Lamane di woo Khourou Sow di woo Moussa maa ngi woo maa ngi woo ñii may liggéeyloo moom daf may fekk may liggéey Paul bu Daaru chaque jour. Total Event Sécurité. Total Event Sécurité Omar Gueye moo ko jiite barki Serigne Touba Mbacke maa ngi koy woo si combat bi daf ma yombalal lépp chaque jour dañ may pointé di ma fay xaalis. dafa Paris Dakar laa. nga sol ko ñëw nii. Paris Dakar laay gaare Paris Dakar. rose Serigne Touba si hôtel laay fanaan di la. rose rose kii. yaa ngi sama fay na. combat bi un million laa la wax dama ko siy dugal barki Seydina Mouhamad un million. di nuyu waa Seras di woo sama papa Zora Mbaye père Zora maa lay woo si combat bi jërëjëf. jaajëf kontaan nañ ci ñoom bu baax